wajatu kullil wadudi samadi za xidmatin lil mustafa muhammadi wajatu kullil wadudi samadi za xidmatin lil mustafa muhammadi wajatu kullil wadudi samadi za xidmatin lil mustafa asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñu seetaan seen chaîne bi di Wilaya TV ñu ngi waat fii ci kër Sëñ Xaadim Mbàkke Mouhamed ci bisub gàmmu gi bu defee rek boo leen euh, xoolee si gannaaw da dañ xam ne ñu ngi fii ñu defee consultation gratuite bi nga xam ni ren dañ kaa indi ci gàmmu gi pour ànd koog waa hôpital Amadou Sakhir Mbaye ak docteur Mamadou Sidibé consultation générale bi nga xam ne dina am fii nii ànd koog mbokku taalibe yeeg waa koñ beeg soppe ñëpp ñi nga xam ne rek am na yëg-yëg seen yaram te bëgg ñu xoolal leen ko ñu yegg si fii nii asalaamaaleykum wa rahmatulaay bokki julli bokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu di leen siyaare di leen balaax di leen balaax gàmmu gi yàlla nañ ko yàgg gàmmu yàlla mu nekk suñu gàmm suñu yàgg lool te ànd ko wér ak mbokki taalibe yi ko àndal yëpp wax dëgg yàlla taxawaay bi rafet na lool ci taalibe yi ah concertation bi nag wax dëgg yàlla rafetu nañ ko lool lii moom war nay am toujours moom jegee lool sax ndax dimbali mag ñi la ndax mag ñi am na ñoo xam ne amuñu njëkk ordonnance te lu ñu dem hôpital yëpp bu ñu demee ba yombalal leen ko ñu ñëw fekk suñu fii ci kër Sëñ Xaadim Mbàkke ah diñu dimbali diñu jàppale diñu fajal mag ñi nun mag ñi wax dëgg yàlla dañ leen sant bu baax a baax di leen rafetlu yàlla yàggal ko may ñëpp ak wér ak wérle yàlla na leen yàlla dolli xéwal bu baaxa a baax dolli leen garaar yi médecins yeeg ñëpp wax dëgg yàlla sant nañ kontaan nañ ci ñoom bu baax a baax loolu daal wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na lool rafetu nañ ko yàlla na ngeen ko yàgg a war ngeen nag lépp loo xam ne ni lu fi xewati lool yëngu bu fi amoon daam bu nekk ngeen taxaw ko ñëw taxawu mag ñi wax dëgg yàlla am solo la wasalaamaaleykum wa rahmatullah